Assane Seck la tudd. nee na moom kontaan na trop euh, pour final bu tay bi euh, conditions yi metti woon na préparatifs yi mais. lépp alhamdulilah ça s'est bien passé pikin jël na ko mais c'est le Sénégal qui gagne voilà sport sourd moo ciy développé wu. voilà nee na euh, par chance euh, sant yàlla yàlla moo leen jàppale ñu jël ko Thiès euh, ñàkk na ko mais bon ce n'est partie remise parce que Sénégal daal mooy gagné football Sénégal. ñëw ñaata fois ñu ñu nekk ñu gagné coupe fois. ok quatrième fois ñuy jël euh, euh, tournoi. champion euh, Sénégal. ban bébé lañ am. Sénégal Sénégal. que tout le euh, autorités yi ñu bëri dañ leen di envoyé ay message courrier pour que ñu leen di jàppale ci seen football parce que passion la mais pour ñu dund seen passion parfois c'est difficile parce que ñoom ñooy cotiser seen biir euh, ñooy def ay sacrifice seen transport ñoom ñoo koy gérer seen bopp Pikine dafa jógee euh, euh, euh, Dakar ñëw ba fii Thiès ñoom ñoo ñoom ñoo paasal seen bopp voilà kenn jàppale leen ñu ñëw fii aussi conditions yi metti trop nee na les responsables dañuy dund lu metti pour que football sourd mën a développé dañuy def ay sacrifices ils sont pas payés comme Cheikh Oumar le président ak Seydina c'est des personnes yoo xamante ne ñoom ñoo commencé le football sourd mais c'est pas facile voilà pour pour que autorités yi peut-être xam na ne ñun conditions yi ñuy dund metti na te jël nañu Coupe d'Afrique ñoo fi njëkk indi Coupe d'Afrique alors que il faut que ñoom ñu ñuy bàyyi xel. voilà faut que ñoom ñuy def effort faut pas dire que ne c'est des sourds communication bi ça passe pas ñoom def ñun defuñu langue des signes duñu comprendre il faut que ñu essayer il y a des interprètes qui sont là pour loolu il faut que ñu def effort ñuy comprendre sourds yi voilà tout le temps dañ leen di wax après après on n'a pas reçu de courrier et tout ça peut-être c'est des prétextes il faut que vraiment ñuy di def effort di leen euh, di leen jàppale nee na coupe du monde Malaisie ñoo jël euh, troisième place indi médaille de bronze loo xam ne mosu fi am mais tout le temps euh, respect bi ñu leen war a jox dafa des. football gouvernement des na euh, ñi ngi wax euh, muy fédération muy ministère des sport ñu bàyyi xel suur yi ñu def de telle sorte que tournoi national parce que lii tournoi national la tournoi yu mel nii bu amatee ñu mun ko financer préfinancer lépp euh, suur yi war a jóge ci région bi par exemple Kolda Ziguinchor bu ñu waree ñëw du ñu am problème seen hébergement seen restauration ñu mun ko gérer responsable yi wala jël seen xaalisu bopp di ko def ci tournoi yi c'est pas normal parce que ñoom équipe nationale lañu dañ leen war a respecter jox leen jox leen gëdd comme niñ ko joxee ay ñoom Sadio Mané ak ñeneen parce que équipe nationale la dañuy représenter le Sénégal partout xëy na ñuy lancer message fédération de football sénégalaise parce que euh, dañu naan parfois que c'est des sourds est-ce que war nañu bokk euh, fédération mais si war nañ leen jàppale parce que c'est le Sénégal drapeau Sénégal la ñun ñëpp moom la ñuy défendre voilà c'est c'est ça nee na loolu la amoon lu muy wax que vraiment autorité yëpp jàppale leen nee na nee na comme li muy expliqué sànq ba léegi que ñoom ñooy préfinancé seen lépp parrain bi ci boppam xaalisu boppam la moom moo financé joxe mille joxe jënd trophée jënd maillot pour que tournoi bi mën a am. nee na c'est comme si c'est comme si mënu mësuñu leen décorer à l'ordre national du lion c'est comme si mësuñu indi coupe d'Afrique c'est comme si mësuñu indi médaille de bronze. Euh, ci coupe d'Afrique euh, coupe du monde voilà c'est dommage ñoom ils sont tristes nee na moom il se dit il se dit étant sourd étant champion d'Afrique étant euh, médaillé de bronze ci coupe du monde nee na il se dit mais comment ça se fait que joxuñu ñu cër ba léegi nii parce que xeex nañu reyante nañu ba yegg si fii léegi nii ñu ngi war a préparer yeneen échéance euh, Maroc euh, ci décembre bi du 19 au 20 voilà décembre